Heavyweights.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 trois fall ñoo fa jàppante ba kenn ki faat ka ca des ëpp tëlaw ñoom ñaar dañoo xuloo gannaaw bi ñu xuloo xuloo bu tàng ku ci nekk dem sa kër jël sa paaka def ci sa yére indaale naka noonu bi ñu dellu see ci la ñu jàppante ci jàppante boobu nag laa fal poignardé kii daas fal deret gi sangu ko bi ñu koy évacué hôpital ci la ñàkk bakkanam afal nag bi mu defee njombeli def ne fëx daw waaye mujj nañ ko teg loxo waaw góore waay ma ne nag réew mi léegi ñaari nit bu ñuy jàpp jàppante ñoxor njaay rek ñu génne arme moo tax faat bakkan mel ni tulleeg màlli moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax la xew ca ngor na war am magistrat daal moo fa liggéey ba wàcc gaare otoom ci guddi ñaar fukki fan ak juróom jëm ñaar fukki fan ak juróom benn di bësub alxamis ay samba booy ñoo fa ñëw dal di daj vitre oto bi dugg ci biir visite visite waaye fekk ñu fa dara ndax magistrat bi saa bu wàccee de day jël document ak ji daal di koy yóbbaale ma ne ko moo gën a wóor de bu ñu ko fa fekkoon day musibaam fi mu ne nag déposé nañu plainte ci division des investigations criminelles insécurité bi nag léegi réew mi yëpp la ndar képp amul ville amul banlieue amul village ma ne fépp lay jaxe la wax moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona laa wax ma ne xool leen bu baax ñi ngeen di bàyyi ak njaboot la wax ndax bari na nit ñu yàqu te boo seetee fa leen dénk ñoo leen yàq ma ne ko nag bari na ci réew mi torop la xew ca waagu ñaay doy na waar ab ndaw si jigéen bu doon liggéey ci benn kër ñu naan ko mbindaan moo fa transformé ak xale bu jigéen bu ndaw bu am 9 ans def ko prostituée di ko jaay ah! ma ne xale bu jigéen boobu noonu am 9 ans doomu patronam la xale bu jigéen bi am 9 ans la doon jaay laa la wax di encaissé bon boobu nag nee ñu ci biir kër gi la nekkoon di fa fanaan moom ak xale bu ndaw bu jigéen bi ci fanaan googu mu doon fanaan xale bu jigéen bi nag ci la ko yàqe yàqe ci ay jëfandiku yum doon jëfandikoo moom ma ne ndaw si saabu ñu muy liggéeyal xëyee mbindaan bi dafay woo ay góor ci kër ñu koy jëfandikoo di jëfandikoo xale bi te loolu noonu parents yi musuñu ko yéeg ndaw si nag bi ñu ko tegee loxo nangu na ne moo initié xale bi ci ay yëfu saay-saay te nim ko ci doon initié ma ne ni mu ko waxee ëpp naa tudd ci rajo la wax waaye ma ne xool leen ñi ngeen di bàyyi ak seen njaboot xale bu jigéen bu ndaw bi tamit wax na xale bu ci kanamu enquêteurs yi tamit nee na mbindaan bi am na ku mu invité woon ci kër gi waa bi mu ñawee def ko tëddee ba noppi jox ko ñetti junni ëpp tëlaw xale bi nee na waa ko joxee ñetti junni yi mbindaan bi da la ñu luwee dana leen lor ndaw si nag placé nañ ko sous mandat de dépôt di ko toppee ci wàllum pédophilie ci xale moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax la xew ca caaroy sant yàlla doy na war ñetti ponkal daal ñoo fa jàpp xale bu jigéen bu ndaw bu am 15 ans dal di koy violé waaye réew mi dana tas la wax kenn ki mu ngi tudd M Suma am ñaar fukki at o Bangura am ñaar fukki at ak benn ak rakkam bu tudd S Bangura am fukki at ak juróom-ñeent ñoom si ñëpp di ay ressortissant guinéen ñoom daal ñoo fa jàpp xale boobu dal di koy violé xale bu jigéen bi daf leen a romb ñu woo ko proposé ko cinq mille ngir tëddeeg moom xale bi dal di lànk ci noonu nag la ñu ko forcé yóbbu ko ci seen biir chambre ñoom ñetti ñëpp egg ci kawam waay waay waay waay waay waay waay ñee xale bi nag biñ ko yàqee yàqee ci melokaanam boobu la delloo këram dal di koy wax ay paaram ñetti xale yi def njombeli nag mujj nañ leen teg oxo ma ne leen waaw góore waay ay ma ne réew mi li fi am ëpp na mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz